Bienvenue sur Salam Vision. même ci ci ci axe bi wax naa leen ko sànq Abdou Diallo démb il s'est euh, de bout en avec le groupe def na entraînement collectif bi yëpp euh, donc euh, moom ay crampes musculaires la amoon ñu bëri sax dañu doon wax blessure au genou parce que ba mu génnee keroog contre les pays ba dañoo foogoon ne peut-être genou bi nga xam ne xawoon na ko sonal bien avant muy ñëw équipe nationale moo yëngu woon. piston parce que mooy génn ci kaw def pressing haut bi ah, voilà gars yaa ngi noonu di génn yéen a ngi seen ñoom Euh, Lampalis et gaana Gueye voilà soit Pape Gueye lay doon bon Pathé Ciss personnellement man je je ne m'attends pas trop à le voir ci ci onze bi euh, mais on ne sait jamais Aliou Cissé peut nous réserver des surprises aussi mais je pense plus que euh, Nampalis ak Gana on pourrait voir un Pape Matar Sarr wala un Pape Gueye pour euh, pour encadrer donc Abdou Diallo vous le voyez moom mu ngi nii di entraîner ak équipe bi yëpp donc demain normalement il devrait tenir sa place euh, dans l'axe ñoom ñëpp a ngi fi. ñoom Lom Ndiaye ñoom Famara Ismaïla Sarr tey aussi euh, l'information à retenir c'est que Fodé Fodé Ballo Touré s'entraîne avec le groupe euh, depuis son son retour il s'entraînait à l'écart du groupe donc Fodé Ballo Touré ngeen di gis noonu juste derrière euh, tey il a repris l'entraînement avec le groupe mais certainement qu'il sera un peu juste demain pour tenir sa place sur le côté gauche donc il revenait un peu de blessure c'était pas trop méchant mais là il est revenu dans et surtout euh, il s'entraîne avec le groupe donc loolu tam c'est une bonne nouvelle on peut donc dire que euh, à l'exception de Cheikhou Kouyaté euh, blessé yëpp ñëwaat nañ ci groupe bi on peut juste retenir que ni Cheikhou moom il continue sa sa convalescence ñu ngi koy defal ay soins Abdou Diallo démb il s'est entraîné séance bi yëpp tey aussi gis ngeen ko mu ngi noonu ci kanam foo Fodé Ballo-Touré moom démb séance la def ak kiné bi à l'écart du groupe mais aujourd'hui il a de 24 joueurs euh, donc xam naa euh, léegi rek euh, liñ ñu mayoon ci temps jeex mais juste vous dire que ci kaw aussi on a encore quelques incertitudes parce que xamuñu entre Krépin Diatta entre Eliman Ndiaye entre ki nga xam ne mooy peut-être ki nga xam ne mooy. Boulaye ak Ismaïla Sarr euh, ñooñu nan la leen Aliou Cissé di utiliser ak ñan lay ñan lay sepp ci ñoom est-ce que il va toujours continuer à refaire confiance à Crépin et Ismaïla est-ce que dañuy gis Boulaye Dia mu dugg ci euh, euh, mu nekk en tout cas numéro 9 wala dañuy gis un Bamba mu dugg ci ci bi yooyu yëpp ay kii la yooyu yëpp ay possibilité la mais jàppaleen ne moom gars yi ñu ngi nii voilà Nampalis comme vous le voyez a également fourni de gros efforts lors du match contre la Hollande Euh, d'après euh, statistiques yi nga xam ne jotoon nañ ko xool il avait couru euh, un peu plus de douze et quelques kilomètres c'était le jour qui avait fourni le plus d'efforts dans ce sens. Donc, il avait fourni un gros match dans Mende contre la Hollande. Donc, certainement, tam suba En tout cas, ci kaw Chika bon, soit il va refaire confiance aux trois qui avaient joué, voilà, il a changement ci kaw Euh, on parle même de peut-être décaler Boulaïdia sur le côté droit et voir euh, Bambadien en pointe et associé à Ismaël Assar sur le côté gauche. Dans ce cas, Crépin peut-être dañ koy génnee ci 11 bi bon loolu loolu yëpp ay possibilité la euh, mais euh, comme je vous di dit d'ici début de soirée bi di ngeen am probablement 11 bi nga xam ne mooy gën a jege li Aliou Cissé nar a jox suba sénégalais euh, comme on a l'habitude de le faire avoir toutes ces informations sur dakaractu.com tout ce qui est euh, information de dernière main yi nga xam ne dinañ ko dinañ ko am fii ci ci fii ci Qatar voilà tey moom euh, séance bi xam naa luñ ci may si ay simili du bëri parce que euh, waa FIFA ñoo tëral yooyu règlement lëkkale seeg fédération bi veille de match yi moom dañ koy xaw a gën a sécuriser. Euh, juste rek permettre au sénégalais aux journalistes de faire leur travail sénégalais yi a xam équipe bi ci lu ñu nekk mais après dañu daal di euh, tëjaat ñëpp euh, donc loolu tam am na solo voilà kon peut-être juste benn petite précision rek voilà Fodé il s'entraîne aujourd'hui tamit avec le kiné hmm, donc même si sant gis nañ ko mu dawandoog groupe bi def peut-être benn tour de piste ou deux mais là il s'est une nouvelle fois isolé avec le avec le kiné. donc euh, Sélé soo soo mënee def benn focus voilà Fodé Ballo Touré euh, moo ngi noonu di romb euh, il s'est entraîné mais toujours à l'écart du groupe kon aussi ñu def benn petite précision côté boobu donte il revient de blessure nekkagul aussi à 100 pour cent pour mën a Euh, tenir une séance complète ak groupe bi donc euh, comme nu ma leen ko waxee sànq suba si tous yàgg suivre euh, auparavant avant muy nekk défenseur latéral gauche il évolue beaucoup plus comme un milieu offensif comme un piston gauche moom Ismaël Jacobs donc c'est c'est un profil boo xam ne c'est intéressant notamment dans tout ce qui est action offensive pour apporter le surnombre justement def ay dédoublement peut-être ak Ismaïla Sarr parce qu'on a senti que quand même si côté loolu manqué nañ trop suñu match contre Hollande euh, activité bi nga xam ne doon nañ ko gis ci couloir yi ak un Sabali ak un Saliou Ciss nga xam ne dañ doon fël di centré euh, loolu dafa bokkoon ci ay forces Sénégal rawatina ci Coupe d'Afrique bi ñu jóge te on a vu que manqué woon nañu tuuti même si Sabali également contre Hollande def na un très gros match je pense qu'il avait euh, il faisait partie des joueurs qui, qui ont fait plus d'appels de, balles de sprint euh, de passes vers l'avant donc Sabali avait fait un maintenant on va essayer de voir contre euh, euh, Qatar est-ce que tey suñu laaf yi dina gën a dox. Euh, parce que dama koy wax chaque chaque fois mu ngi mel ni barsa ba muy nekk ci seen ba ñu nekk seen diggandand complicité bi amoon entre ki nga xam ne mooy Jordi Alba ak Messi wala Dani Alves ak Messi parfois mm, boobu complicité parfois ci ci flanc yi. Euh, ñun dañ koo perte ak Sadio Mané ak Saliou Ciss parce que dañoo amoon benn déggoo boo xam ne sa morom bu téye bal bi rek xam nga li nga war a def te loolu il faut il faudrait que ñu recréer ko ak joueurs yu bees yi fi nekk donc. Euh, Euh, Ismaël Jacobs ak euh, Ismaïla Sarr ñun normalement ñoo war a nekk sur le côté gauche il faudrait que tam ñu travailler seeni automatisme pour mën a am euh, beaucoup plus d'effet de surprise et surtout apporter le danger ci camp waa Qatar bi sans que Idrissa Sané bu L'Obs mu ngi koy wax ce sera pas peut-être la même équipe du Qatar bi ñu gisoon contre Équateur parce que keroog moom ils ont fait un non match waa Qatar peut-être li ñu organiser le public bi pression bi c'est pas évident de découvrir comme ça une coupe du monde ñoom ñi nga xam ne amuñu ci pratiquement benn expérience donc euh, euh, est-ce que euh, dinañ gisaat même Qatar boobu wala Qatar suba dafa nar a indi beneen xar kanam seen diggante ak Sénégal on verra bien en tout cas match bi 16h mm, lay doon fii heure locale 13h temps universel foofee ca Dakar donc xam naa ni tout un peuple ñu ngi koy xaar parce que suba je pense que Sénégal ci la war a jouer son avenir dans cette coupe du de vaincre wala de battre le Qatar pour peut-être siggi xool fan la ñu jëm suñu diggante ak Équateur ñu négocier ko pour espérer une qualification soit on fait un très mauvais match euh, pour ne pas dire euh, voilà on hypothèque nos chances de se qualifier donc suba moom si la ñuy xam lan mooy avenir au Sénégal ci coupe du monde bi une victoire serait synonyme de de de relance parce que euh, boo dooree Qatar après Équateur aussi beneen finale lay nekk hmm, donc. mu ngi noonu il faudrait aussi nga négocier sa match boobu contre euh, Équateur mais loolu yeggaguñ si euh, li nekk suñu kanam euh, tembe mooy match bi ñu war a jouer demain suñu diggante Qatar Aliou Cissé aussi man j'ai envie de dire que ni wax na xale yi te dafa wax moo bu phrase bu am solo mooy que les joueurs ils sont conscients de la situation te ñoom seen bopp ñoo gën a bëgg continuer di jouer coupe du monde bi dem le plus loin possible dans tournoi loolu laa li donc joueurs yi bëgguñu ñibbi si ah donc <laughs> ñoom tamit euh, peut-être ñoom si ñenn ñi c'est c'est leur dernière coupe du monde euh, peut-être si ñenn ñi de par leur âge je veux dire parce que bon peut-être am na ñoo am comme ñoom peut-être Kouyaté Gana euh, ñu ngi dugg ci trentaine bi voilà c'est un peu des des yoo xam ne peut-être mën naa am ñu joué waat coupe du monde c'est mais mais c'est vraiment très peu probable. Euh, Famara Diédhiou, même Edouard, Edouard Mendy, je pense qu'il qu'il est les 29 ans, quelque chose comme ça, mais donc fii quatre ans est-ce qu'ils seront toujours au au niveau est-ce qu'ils seront toujours au niveau de la sélection donc yooyu kenn xamul moo tax coupe du monde boo ci nekkee il faut se donner à deux parce que xamoo kañ lay jeex xamoo ndax tu auras l'occasion euh, de revenir encore jouer euh, un mondial avec la sélection nationale donc joueurs yi ils sont conscients de tout cela et ils veulent euh, que l'aventure se se poursuive ici au Qatar et donc loolu tam c'est bien ñoom ñu am seen motivation personnelle. bu weesoo attente bi peuple bi am bu weesoo euh, pression bi yeeg yëpp daal ce sont aussi des compétiteurs et ils savent réagir euh, te je pense que quand même nag euh, sans aucune prétention en tant que champion d'Afrique en titre en tant que numéro un du classement FIFA depuis bientôt quatre ans parce que 2017 <laughs> je pense ba léegi ñu ngi ci kaw tey jii on peut Euh, si on ne peut pas battre en tout cas je pense qu'il y a un problème donte sax nag dañu xeeb benn équipe parce que gis ñun ñëpp gis nañ li xew ci coupe du monde bi ba mu commencé ba léegi hmm, tey ku la ne woon Arabie Saoudite dina door Argentine doo ko gëm ku la ne woon Allemagne day daanu euh, seen kanam euh, Japon doo ko gëm ah, <laughs> donc on ne peut pas aussi xeeb équipe bu Qatar bi mais quand même on est en de de dire que ni ak équipe bi ñu yor ak joueurs yi ñu yor mën nañu quand même dóor bu mel ne Qatar. Euh, voilà sans être euh, trop prétentieux maintenant nag match piège match piège bi mooy peut-être nga ñëw rek foog ni euh, da ngay lem tak Qatar jàll ci kawam <laughs> noonu certainement que ñoom tam suba bu ñu leen dóoree dañuy toog parce que dañuy subir une deuxième défaite donc organiser ba pare au bout de deux matchs nga toog moom du du yomb donc ñoom tam ils vont vendre très cher leur peau mais nañu gëm suñu bopp gëm lu ñu yor xam ne aussi. on peut réajuster les choses et aussi faire un bon match euh, surtout que contre Hollande defuñu un mauvais match je pense que loolu moom ñëpp d'accord nañ si joueurs yi defuñu un mauvais match contre la Hollande euh, peut-être à un moment donné on a manqué de réalisme devant le but et que surtout ci dix dernières minutes yi euh, wala quinze dernières minutes yi sax parce que temps additionnel bi c'était presque neuf huit minutes demoon na ba quatre-vingt-dix-neuvième minute a téye suñu bopp gën a taxaw suñu tànk Euh, mais on a peut-être voulu trop aller chercher la victoire ba euh, finalement on a perdu le, le fil du match mais bon loolu yëpp ay jàngat la aussi bien pour Aliou Cissé aussi bien pour les joueurs qui sont qui mm, en tout cas retenez nekk ni balo Touré rek ak Kouyaté te balo sax mu ngi entraîné mais à l'écart toujours du groupe moo kiné bi ñooy daw noonu euh, sinon Kouyaté tam mu ngi en convalescence mais le reste ñoom ñëpp ngi fi voilà ñoom ñëpp euh, ñu ngi fi. donc xam naa ne nag euh, li ñuy desee seetlu ci entraînement bi du bëri comme ils avaient dit que quinze minutes la ñuy may xam naa ne sax xaw nañoo xaabaabal fii il e seize heures trente euh, Dakar vous êtes à treize trente foofu yéen ñu ñu seetaan un peu partout donc euh, wax naa leen ko fii moom seize trente fu mu jotee jàppal ne timis mu ngi jot <laughs> c'est un peu la particularité ñu bëri dañ may laaj euh, naka climat bi fii ma ne leen bon ça euh, ñu bëri jàppoon nañ ni fii da ngay ñëw fekk fii ay quarante cinq degré cinquante degré mais climat bi ça va quand même parce que 16 h moom fu mu jotee déjà da ngay sentir na sedd bi mu ngi dugg. Euh, donc euh, peut-être pic de chaleur yi c'est entre dix heures ba ay treize heures yooyu quatorze heures te loolu c'est c'est assez normal aussi mais sinon bon le climat nit ñi ni ñu ko foogee woon melul noonu c'est pas des chaleurs caniculaires yoo xam ne la am fii. Euh, suba aussi Lions yi 16h la ñuy joué wax naa leen ko heure locale fii donc euh, ñoom seen peut-être marché bi dina fekk. naaj bi di commencé wàcc ndànk-ndànk euh, euh, d'autant que sax stade bi ñu joué euh, voilà dañuy day nekk stade climatisé donc suba tam match bi ci stade Altoumama lañ koy joué fi ñu joué woon match bu njëkk bi match bu mujj bi nag la ñuy joué ci suma juumul Al Khalifa mm, suñu diggante ak Équateur bu 13h jotee mm, heure locale donc 10h heure temps universel. voilà mais jàppale na daal gars yi gis ngeen gars yi ñu ngi noonu di di continuer liggéey bi euh, on voit Kalidou Koulibaly aussi fale ce kanam moom moo nekkoon tey aussi en conférence de de euh, ak Aliou Cissé keroog bañ leen dóoree ba pare en zone mixte bañ ko taalalee suñu micro moom Koulibaly li mu wax leer na mooy que ni euh, parfois coupe du monde noonu la c'est sur des détails ngay perte sa match. voilà gis ngeen ko moom mu ngi noonu di def sprint bi donc ku li li mu wax mooy que c'est sur des détails ngay perte sa Euh, sur des erreurs de concentration ngay perte sa match euh, donc euh, coupe du monde quatre-vingt-dix minutes la tu peux faire soixante minutes soixante-dix minutes voire quatre-vingts minutes de très bonne qualité boo bàyyee sa loxo tuuti rek sur les dix dernières minutes tu es puni ah, booy xool démb hmm, loolu leen dal seen diggante ak Japon ils ont les Allemands ont fait un très bon match booy xool ils ont fait un très bon match beaucoup d'occasions mais japonais yi si fin wu match bi. ci vingt dernières minutes yi la ñu jëlaat match bi en main euh, dugal leen deux bi <laughs> donc mu ngi noonu donc Pape Gueye yéen a ngi koy gis noonu moom tam suba ñu ngi xaar pour peut-être gis ko dans le onze Pape Alassane Gueye euh, vraiment euh, je pense qu'il a de fortes chances ñu gis ko suba ci onze bi te dafa mel ni sax voilà y a groupe bu ñu xaw a décalé nii Sele hmm, y a groupe bu xaw a décalé nii y a Pape Gueye y a Kalidou Koulibaly Euh, maa ngi seen Iliman maa ngi seen Ismaël Jakobs bon moi, les autres sont en train de les rejoindre voilà Bamba Dieng qui qui est là-bas Nampalis en tout cas je pense que ni voilà bu baaxee Ismaël Jakobs mu ngi noonu daa mel ni euh, génn na voilà daa mel ni ci toilette yi la jëm noonu il est sorti euh, moom tam ñu ngi koy xaar bu baax et c'est un joueur boo xam ne il est il est très prometteur ah moom Jakobs voilà Pape Alassane Gueye euh, demb moom moo nekk noonu ak ci wetu Crépin ak Ilimane euh, je pense que ni euh, moom tam ñu ngi koy xaar bu baax a baax peut-être demain il sera il sera voilà sur le onze moom Pape Gueye donc on attend on attend de voir mais si guddi gi daal yéen koj leen information rek tout ce sera. info de dernière minute di ngeen ko am rawatina ci onze bi rawatina ci euh, suba Qatar Aliou Cissé la nar a indil gars yi donc euh, euh, mu ngi noonu gars yi daal ñu ngi continuer def atelier bi gis nga Pape Gueye ngeen gis noonu je pense ak Crépin ah, ñoo taxaw noonu donc ce sont des joueurs yoo xam ne dañoo war a compter énormément ci ñoom pour match suba bi ki nga xam ne mooy Pape Gueye ak ki nga xam ne aussi mooy. Crépin Diatta voilà gars yaa ngi di def euh, un atelier avec euh, avec le ballon ils sont en train de faire un atelier euh, avec le ballon des jeux de de passes dans de petits espaces pour ce qui est des sorties de balles, pour ce qui est des combinaisons dans la surface, dans l'entrejeu, c'est important de travailler automatisme yoyo. voilà euh, yéen a ngi dégg adjoint bi ne dañuy euh, enchaîner affaire yi euh, donc dafa mel ni li ñu mayoon sele ci temps jeex na donc peut xam naa du yàgg dara rek ñu ñu voilà il nous quatre minutes ah voilà ce qu'ils nous ont dit non il jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf il nous il nous reste il nous ok donc voilà ok donc ñu ñu ñu ñu continuer ñu continuer euh, euh voilà ñu agent FIFA yi ñu disent que là on a un plus de dix minutes donc c' est bien comme comme ça yéen tam mën a continuer de profiter ci image yi ngeen di am en direct euh, est important aussi que euh, ci veille de match yi ñuy gis joueurs yi ñu xool ci état de forme bi ñu nekk xool. Euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def xel yi gën a dal euh, espoir bi gën a dund aussi euh, parce que xam naa ne suba moom ñëpp dinañ seetaan match bi avec beaucoup de pression mais yàlla incha allah gëm naa ne mën nañu defal ndam suñu diggante ak Qatar suñu teelee jël le match en main bañ a xaar comme on avait fait j'ai envie de dire suñu match retour bi éliminatoire coupe du monde 2002 bi fële ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio digganteeg Égypte. Euh, Boulaye je pense que à la quatrième minute la dugaloon les supporters avaient mis un benn benn genre benn pression bu extraordinaire sur les Égyptiens donc sénégalais yi aussi dès le coup d'envoi ils avaient imprimé un rythme d'enfer teel a dugal euh, te match boobu on pouvait la gagner 2 ba 3-0 mais on a manqué de réalisme loolu daf ñu yàgg topp xawoon nañu ko dindee ay jamono mais je pense que dañoo commencé waat dellu ci loolu maanaam am ay occasion yu bëri doo ci dugal benn ci coupe d' Afrique bi particularité bi mooy tey vous avez vu que Cameroun dañ ko dóor 1-0 encore par la Suisse mais équipe africaine yi kenn dugalagu si bi eh, ci coupe d' Afrique bi tey Ghana moo des ak Portugal euh, pour ñu xam est ce que finalement équipe africaine yi <laughs> dinañ euh, am peut être une victoire ça va pas être facile contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Euh, ñoom André Ayew ñoo fa ñoo war a jongante ci kanam 19h lay doon fii 16h à Dakar. mais équipe africaine yi muy Maroc muy Tunisie muy Sénégal muy Cameroun bu joué sànq te ñu door ko contre Suisse non seulement kenn amagu si victoire mais kenn amagu si benn but boo xam ne dugal nga ko bon man je pense que loolu quelque part c' est une anomalie parce que joueurs yi ñu am ce sont des joueurs talentueux qui jouent qui jouent dans les plus grands euh, clubs du monde donc euh, loolu tam ça mériterait peut-être ñu taxaw si seetlu tuuti wax lu waral loolu. Euh, ñu bëri il parle de problème de niveau problème de discipline tactique euh, problème d'efficacité dans le jeu mais bon man j'ai envie de dire que ñun Afrique waruñu ñee kenn ci wàllu football rawatina euh, ci wàllu ay technicien rawatina ci wàllu ay jour yu am talent nañu gën a gëm suñu bopp rek gën a liggéey on verra suñu mbokk ganayen yi ci kanam lan la ñuy def seen diggante que waa Portugal on leur souhaite bonne chance waa Ghana bëri nañ fi ñoom tam ils sont en, en, masse pour supporter euh, seen seen équipe euh, bon demain contre le Qatar en tout cas ñu bëri ñu ngi xaar un score fleuve mais man euh, je dis souvent que attention fii moom équipe mun nga ko mën sax mais doo ko doox yenn score yi donte Espagne moom démb ils ont infligé une très lourde défaite au Costa Rica 7-0 démb Espagne moom démonstration de force lañ doon def mais c'est pas toujours le cas mun nga mën équipe te doo ko doox score fleuve Euh, encore qu'on en discutait l'autre jour avec les confrères, euh, sur les 7 ans et quelques qu'il a eu à passer sur le banc de l'équipe nationale, l'AFC a très rarement remporté des matchs sur des scores fleuves. Hein. Euh, mis à part peut-être le match contre les Swatini, euh, que le Sénégal avait gagné, il me semble, 3 buts à 1, si je ne m'abuse. Voilà, c'est toujours des victoires par 2 buts d'écart, euh, 2-1, 3-1, que l'AFC et les Lions ont réussi. Donc, euh, bu ngeen xoolee archives yi ñu gis Sénégal peut-être jàpp équipe door ko 5-0 wala jàpp équipe door ko 6-0 muy amical muy euh, match officiel yi donc ñun tam amuñu peut-être cette culture euh, comme parfois benn Allemagne ñu koy amee wala euh, benn Brésil wala benn Argentine buñ la jekkoo dañ lay door lu bëri wala benn Espagne comme ni ñu ko defee démb loolu tam c'est important parce que en 2018 on a été éliminé sur vraiment une histoire de carton jaune. Euh, moo tax même contre la Hollande défet bi li man personnellement li ma ci gën a déploré mooy les deux buts qu'on a encaissé parce que boo jëloon défaite 1-0 ok euh, tu peux venir peut-être battre le Qatar 2-0 wala trois 0 defaraat sa goal différence mais 2-0 euh, normalement Qatar da nga ko war a dóor au mieux euh, trois 0 pour am plus un tey on sait que le mm, mondial, ça peut se jouer sur une histoire de différence de but, de carton. Euh, voilà, il des joueurs qui ont pris euh, des cartons entourage. Je pense que euh, Nampalis a gagné le carton. Euh, am na benn boo xam ne c'était sur contestation donc yooyu yëpp c'est à éviter ay calcul yu joueurs yi di war di def la staff bi di ci di ci waxtaan ak ñoom donc li ñu dese bëriwul sele il nous reste encore il nous reste encore cinq minutes Euh, cinq minutes moo ñu dese fii mais je pense que l' essentiel a été dit et que li ngeen mën a jàpp mooy que Ballo tey entraîné wu na mais euh, précision avec le kinésithérapeute sinon wala mu ngeen gis ne fond sinon euh, voilà Ballo Touré na moom kese ak kiné bi mu ngeen na la di def liggéey bi continuer euh, di ñëwaat ndànk-ndànk donc suba moom c' est sûr que bokk ci marché bi Abdou jàlloo communiqué bi fédération bi def gis ngeen ko. Euh, Euh, moom ak Kouyaté Kouyaté moom euh, mu ngi continuer di faju déchirure la am au niveau de la cuisse droite Abdou Diallo moom ay crampes musculaires rek la amoon donc entraîné na démb tey mu ngi entraîné suba si tout se passe bien il devrait être titulaire à côté de Kalidou Koulibaly mené dans les camps même si sénégalais yi dañoo teel a <laughs> réclamer un peu Seny Dieng qui qui fait une très bonne saison mais Aliou Cissé moom nee na il continue à faire confiance à Edouard te je pense que bon, Khel Nangonoko, post gardien là, c'est un poste qui est stratégique, qui est sensible. Pour le management de Bokak, euh, gérer les postes attaquants, milieu, etc. Nous avons génne jour à tout moment, il ne faut donc gardien bi dafay soxla repère dafay soxla euh, stabilité ci post boobu donc ce qui justifie le fait si Cissé di ko reconduire Sabaly aussi doon nañ am tuuti njàkkare ci genou bi mais euh, il se il se porte bien donc il devrait ci ginnaaw. Euh, man ci onze probable bi li ma jàpp ji pense que Nampalys ak Gana euh, peut-être ki leen nar a ñetteel mooy ba euh, Pape Gueye man loolu laa jàpp mais bon on verra à l'issue lu muy def. Euh, ci kaw aussi est-ce que day reconduire Crépin Ismaïla Sarr ak Boulaye wala euh, day bàyyi Ismaïla Sarr euh, ci kaw daal di samp Bamba Dieng en numéro 9 Boulaye Diagne dekkale ko en ailier droit loolu yëpp ay possibilité la comme mën na ñëwaat indiwaat presque ci kaw même équipe bi joué woon seen digganteeg ki nga xam ne mooy Hollande jàppale na daal fii timis bi jot na ba pare mais 17 heures moins. ci lañ euh, lañ toll nii séance d' entraînement de veille de match Sénégal euh, Qatar suba lay doon au stade Altoumama euh, bu 16h jotee fii heure locale 13h temps universel ce sera un match décisif pour le Sénégal et yéen ñi suivre Dakar Actu yëpp un peu partout au Sénégal et un peu partout dans le monde di ngeen mën a également en tout cas on fera tout pour faire de sorte que. Euh, après match bi aussi ngeen euh, am ay réaction euh, yu am solo jóge foofa ci stade bi ci alentour yeeg yooyu yàlla na doon nag victoire ndam lu yaatu nga xam ne dañ koy féete célébré ko ak ñëpp donc Sélé xam naa li ñuy deseeti du bëri peut-être rek ñu waajal li nga xam ne mooy tàggatoo bi vous laissez profiter de ces dernières images euh, en direct ici au Dial euh, Complexe où le Sénégal affûte euh, ses armes, où Aliou Cissé et son staff voilà, sont en train de peaufiner leur dernière stratégie avant le match contre le Qatar de ce vendredi à 13h GMT. Amno Solo. Euh, coupe du monde bi lii la fête la partage la démb yéen ñu sur Dakaractu vous avez pu vivre en direct li nga xam ne mooy prestation waaye ASC Lebougui gi euh, def nañu une prestation de haut vol foofee ca euh, suk waxif bi ci corniche Dowa bi euh, ngeen mën a gis marché bi na mu mel ambiance ba fa am waaw donc loolu yëpp da ngeen koy am ci Dakaractu boo leen di suivre suñu programme donc euh, c'est c'est c'est c'est le football mais aussi c'est tout ce qui se passe autour nga xam ne dafay am solo euh, donc il nous reste euh, juste une minute c'est xanaa ñu tàggatoo gars yi après daal di daal di joxante rendez-vous. donc temps bi ñu joxoon jeex na euh, on avait juste tey quinze à vingt minutes yoo xam ne tey dañ leen ko doon jox euh, pour ngeen suivre séance d' entraînement de veille de match Sénégal euh, Qatar bi information yi day continuer sur 3w point dakaractu point com tout ce qui onze probable tout ce qui information de dernière minute ngeen ko am mais jàpp leen ne tey groupe bi ñoom ñëpp ñu ngi fi à ki nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté dafa blessé ba léegi Balo Touré il s' est entraîné kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm.